Chérif Dia ci yéen a kaay yeeg euh, seen i euh, xët alors Chérif euh, évidemment dañu koy njëkkee ak l'observateur l'observateur mi xëy ak li nga xëyee tey ci journal bi jëm ci kii di Hadjibou Soumaré alors ñoo ngi lire ci xëtu l'observateur bi ci français présidence commission UEMOA les non di de la démission de Hadjibou noonu la ko tuddee moom yenn kaay bii di l'observateur dellu si rek ci li làqu ci tekki ndomba tànkam moom Hadjibou Soumaré démb la jël boobee dogal lan moo tax nag Macky Sall daal di rek bëgg a jëlaat poste bi nga xamante ni moom mooy post njiitu présidence commission bu union euh, monétaire ouest africain di yor wàllu koom-koom bi fii ci Afrique sowu jant yéenekaay bi it nee na. ak yi mu xamaloon na Macky Sall ne ko bu bëggee poste moom dina ko ko jébbal mu mel ni kon jëfee na la mu waxoon. muy démission boo xamee ni xam naa di nga ci ñëwaat bu ca kanamee tuuti ci journal wolof bi bu ko defee mu gën a leer ci euh, boppu sénégalais yi quotidien itam ak yi bu Soumaré la xëyee tey ñoo ngi lire Chérif ci xëtu euh, journal bi ci français ni il démissionne de la présidence euh, de la commission ak bu Soumaré n'est plus le chef de mois mu mel ni kon yéen bi moom foofu la fël di le quotidien jàpp na rek moom kon nekkatul njiital UEMOA bu Soumaré ginnaaw bi mu tekkee ndoom ndomba tànkam jël démission jébbal ko njiit réew bu Sénégal wax tamit yeneen naataangooy Macky Sall yu nekk ci Afrique sowu jant